mbokk yi teewloo saabal tomb net tafi taataane seeni xibaar ci làkk wolof laasana gàññi saaxo ci ay kàddoom muy xam ne ne sonko mooy ruuxu ndaw ñi yaakaar yépp a daje ci moom ne laasana gàññi saaxo di lëkkalekatu ak topp bépp semb politique ak liggéeyu wànqaas yi xamtu yu làngu Pastef gis na ne taxawaay bi ndaw ñi wane ci ndaje mi sonko doon amal day wane Euh, seenug amu ci jël euh, ci jëlal seen bopp seen ëllëg euh, moom sëñ Sakho jàpp na ne su ak maasam gënoon a amu te suuraale ñeneen ñi réew du woon masa nekk ci tolluwaay bii mu nekk tey ci ay wet lañ njiit li di doxalee ci lim ndaw ñi di wax li ñu bëgg suñu ndaw ñi def nañu seen tànneef Euh, ci tànn tey ngir dëgmal ëllëg euh, xam nañu ne ñoo yor euh, doole yi mën a soppi seen ëllëgu bopp di li mu fesal mu dolli ca ne su ngeen bëggul Ousmane Sonko dolli leen ci ne dageen a bañ ndawi Sénégal Sonko mooy ruuxu ndaw ñi moo dajale yaakaari ndaw ñi saabal tomb net